waaye faal takk jóg maam lampa aljana faal war a rajo xeddu lee awraale moo almaañ a ngi nii ana ñu bëgg a ñëw Europe almaañ a ngi nii ay lamp rek ngeen fi gis de lamp yi ngi ngeen ma trop yaa ngi di daw di daw waaye waaye faal takk la ah faal mama teg ma daan di sax laa ilaa ilaa laa laa ilaa ilaa laa laa ilaa laa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 Fa Njaga laa ilaaha illallah Faal laa ilaaha illallah dimbalaayu Faal yërmandaayu Faal lébi Faal bi de ilaaha illallah laa ilaaha illallah Faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallaah ndimbaloo faal yërmande doolay biir faal ak bitee takk takka takkate boobu tengale na raay jóg gis ngeen raay bi nu mu jubee raay bi dafa war a jóg gisoo leen benn te na raay gis ngeen raay bi nu mu jubee bàyyi leen raayaata bi tey waxante dëgg man la maam lamp àjjana faal waaw yéen doo leen <laughs>

non mënoon naa koo set bi ndax maam fàllu set setal waaw lépp set leex eh, bu leen ñu ray ñun ku dul ëpp <laughs> du dund ñu la Sénégal sëñ Tuubaa ko mën a doxal du Sonko du Macky du kenn bu leen ñu fontoo waaw ngeen naan kii ah, eh. ala may dee saytaane naan kii fi nekk kii ko yor kenn yoru ko fi sëñ Tuubaa yor seengi ndey ak seengi baay moom dunya oxra politique saa may leen ñu jàmm taana sëy du bële leen ñu rek ñun jàmm nan xam ngeen ñuy bëgg a yeewal saytaane ay guerre ñun ñu am sunu Ahmadu am yàlla am jàmm ngeen bëgg ñeen seen ngi fi saytaane yi yéen gorew jëm a xeex fa yàlla moo gën ngeen xeex ngir suuf ak kër geeg dëkk beeg Sénégal di ñu fat leen ñu fontoo ñun lu yàlla dund ñu la de nara ay jub rek da nga naan eh, oto yi def leen daan taxi yaay nii ngay taxi yi tooy ngeen taxi yi di xool suuf tali bi yabaate quoi di fontoo nit ñi waaye fii bu ñu fi convoqué da nga war a wuyu ji de góor nga dëgg dëgër doon jantal maan bu ñu la convoqué wuyu jël.